alors Kaffrine euh, Benno Bokk Yaakaar a perdu euh, les élections Benno Bokk Yaakaar se retrouve avec euh, vingt 26 mille et quelques euh, derrière la coalition Diomaye Président avec 33 000 et quelques voix moo nekk euh, une zone qui était particulièrement très surveillée d'ailleurs c'est une défaite qui en a surpris plus d'un ndax bi président Macky Sall nekkee ci nguur ba tey amul benn élection boo xam ne perte na ko au niveau de Kaffrine. Euh, qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé avec le recul ban lecture nga am euh, ci defetu defetu Kaffrine bi. bon defetu Kaffrine bi su ma defet personnel la man xam nga man du ma koy responsable buy laqatu ou bien buy ragal yenn affaires yi man je me considère que président la République am na ci kóolu ci si man dénk ma lu bari euh, jox ma aussi ay jumtukaay yu bari su ma demee élection. su perte amee damay ne responsabilité première bi man la mais après nag su ma defee loolu ba pare ma jàngat li tax mais may mën a euh, jàngat bi ma def tey def nañ ko ñun le 31 mars immédiatement defaat nañ ko euh, il y a quelques jours bi fa président yónnee délégation bu mag bi nga xam ne mën nañ cee ràññee Amadou mam Diop président de l'Assemblée nationale ak le président Abdoulaye Daouda Diallo ak yeneen ministre yu bëri ñu mel ni Moussa Baldé Moussa Bokar Thiam euh, Abdoulaye Bibi Baldé ñun ak ay député yu mel ni Aliou Dembourou ñu newaat encore ñu évaluer waat mais élection yi d'abord il faut reconnaître ça il faut aussi le, le dire il y un vent de changement profond bu Sénégalais yi parce que au bout de 12 ans les Sénégalais avaient envie de changer te Kaffrinois yu bëri jàpp nañ ni euh, def Macky Sall def na fa lu baax def na fa liggéey bu leer bu nga xam ne kenn mënu ko werante mais bëgg-bëgg bi ñu bëgg changement bëgg gis lu bees loolu emporté na ko loolu mën nañ ko expliquer première raison deuxième raison il faut aussi le dire mooy ñun suñu biir parti ak suñu biir coalition jafe-jafe yu ñu am on ah, si jafe-jafe yooyu servir nañ opposition d'abord un suñu candidat euh, tey suñu candidat la suba duñ suñu candidat coow li am man ma toog fii parce que man itam Euh, dama leeraloon sama mbir si sa émission fii laa ko waxoon ba nga ne ma moytul avenir dab la dama ne la Macky Sall ci lu mu nekk moom ci loolu laa nekk ñu toog d' abord un ñu ne ah premier février ñu ne élection amul. sama boobu nga koy répété sama boobu boo ko répété di nga tijji beneen brèche. waaw du ma ko répété ko donc bàyyi ma. non non de toute façon vous l'avez déjà dit je veux bien ça waaw bàyyi ma àggali premier février ñu war a dem élection 3 février ñu dem assemblée nationale ñu accuser suñu candidat nii dafa dafa c' est un corrupteur. ñu ne ay ñaari juge la ñu corrompre loolu indi coow suñu député suñu bopp ñun suñu majorité ñu wote loolu ñu wote loi boobu mais ala kuli alin loolu tamit bu amul conséquence ci opinion bi ak ci électeurs yi mais ñu ñun ñu xeeb électeurs yi parce que c'est des signaux ko renvoie aux électeurs ces signaux là ont été extrêmement négatifs et d'ailleurs je m'étonne que jusqu'à présent le pouvoir ne parle pas de ça est-ce que ces magistrats là am na wax nañu bu nañ ko juge est-ce que ces magistrats là ont été corrompus est-ce que le notre candidat a été corrupteur mais je pensais qu'on va faciliter cette procédure là pour que mu leer parce qu'il faut que ça soit clair aussi on peut pas avoir un conseil constitutionnel on nous dit qu'il y a deux juges sur n'importe quelle base ñu ne deux juges ils ont été corrompus mais ba tey affaire bi leeraluñu ko tey benn sénégalais du laaj ñu leeral muy benn ñu dem ñoom ñu dem conseil Euh, loi bi reporté élection yi conseil constitutionnel may leen dëgg ñun ñu jàppaat ñu waxtaan dialogue national dialogue national ñëpp ñëw sauf une partie une grande partie de l' opposition li ñu fa tënk ci dialogue national bi yëpp conseil constitutionnel sànniwaat ñu ko mais loolu aussi loolu bu amee mais population aussi dañuy liir ñi jàppoon ni ñii ñoo doole ji dem nañ ba lépp lu ñu di comme décision conseil constitutionnel dindi ko te amuñ beneen moyen pour topp ko loolu président bëgg jàmm réew mi xam nga président mënoon na utiliser l'article 52 mënoon na dissoudre conseil constitutionnel mënoon na def yeneen yëpp mu ne ah nañu tënku ci li conseil constitutionnel wax mais tënku ci conseil constitutionnel wax tënku ci mbir yi am événement yi yëpp am mais àla kulli àll am na impact léegi ñu ne nañ dem élection conseil constitutionnel fixé date ne le 31 mars fekk conseil des ministre bi bi jiitul à 18 heures président wax ne le 24 mars loolu itam indi jeexe jaaxa ci bopp nit ñi dem nag conseil constitutionnel war a ginnaat beneen communiqué ne waa d'accord date bu président waxoon nañ ko commencé si suñu partie ñu agité débat ak suñu suñu coalition dañu changé candidat ba ñu war a demaat ba secrétariat nationale président mu ne waa dem leen léegi waxtaan bi wax nañ ko dem leen élection mais nga foog ne campagne électorale mun nañ ko def ci une semaine ou dix jours man par exemple ak Kaffrine mun naa ko wax euh, du tee nag seen victoire bu leer nañ ma nangu am bugguma taxal dara ci seen victoire mais defuma campagne électorale amul benn quartier bu lay wax ne Abdoulaye Sow teg na fa tànk parce que mënu ma ko d' abord un département waroon naa dem yenn communes yi ma jàppoon nii ñoo gën difficile wa dem waroon naa dem ci ay ay dëkk yu nga xam ne jàppoon naa ne am na jafe-jafe te dëkk yooyu yëpp ñu waxoon am na jafe-jafe ñu dem fa ñun ñoo fa gañe mais ci commune Kaffrine ou bien ci yenn yi amul fenn fu ñu fa taxaw am benn kilifa dina bu ñu seeti amul benn président loolu bu ñu nee ñun ay malayka te yooyu nag la ñu dajale ba ñu perte élection moo tax ci li ñu perte élection man am naa ci responsabilité ci Kaffrine mais si suñ parti ak suñ coalition Benno am nañ ci aussi responsabilité dans notre défaite bi ñu am ci élection loolu mooy indi lu indi élection résultat yi loolu mooy lu am Kaffrine moo tax man je suis très très à l'aise alors nee naa Kaffrine nag ci résultat yi ñu am yëpp man Kaffrine ma ci ëpp gàcceel ni waa Kaffrine nee na bul gàc bul am gàcceel ndaxte lépp li nga waroon def fi def nañu ko nag booy xool ci réalisation may li ñu def Kaffrine gisuma benn président de la république waa waa waa Kaffrine jox dafa ñu président la république benn président de la république bu ko def si Kaffrine may mën a je vous télé laay wax Kaffrine de 1960 jusqu'en 2017 amul benn zéro mètre de goudron à l'intérieur de la région il y a que deux routes nationales la route qui nous traverse pour aller à Tamba et la route qui nous traverse pour aller à Touba c'est le président Macky mu ñu def Kaffrine nganda nit ñi foog ni nganda la yem mu yóbbu ko ba jama gaaju mu jëlaat ko ca ca ca ca ca kaccot euh, ca yóbbu ko ba kaccot yóbbu ko ba Thiamène Koungheul un des plus grands départements de la région à part la route la traverse amuloo neneen léegi ñu commencé nañu Koungheul war a dem Lour Baribo Mbirkilaan Mabo qui est une revendication de plus de 60 ans aujourd'hui ñu ngi ci ay chantier waxuma la sphère administrative la plus belle du Sénégal waxuma l'hôpital le, le plus grand centre que nous avions à Kaffrine coûtait millions le président de la République le président Macky Sall a fait un hôpital de 20 milliards waxuma l'université aujourd'hui le le le le cours de de Kaffrine est en en, en finition waxuma euh, la, formation professionnelle où un centre de formation professionnelle de 7 milliards sera sur la route de Kayi waxuma le LINEC le lycée d'excellence président ñu war a tànn ñaari ñaar ba ñett ci lycée d'excellence du Sénégal mu ne benn bii nañ ko def à Kaffrine waxuma boo defee 1960 ba 2000 ba 2020 ba 2017 amul benn nguur bu fa ñëw jël Kaffrine doomu Kaffrine mu def région bi jël fa plus de 200 emplois amul le président l'a amené à 2500 emplois waxuma li Feera joxe par commune kon loolu boo ko defee ci ab dëkk waxuma responsabilisation des cadres de Kaffrine l'implication des cadres de la région de Kaffrine dans ce qui se fait au plus haut sommet de l'État kon loolu boo ko ci defee ci dëkk war nga xaar ay résultats yu baax ala kulli alin kon nag kon nag boo ñëwee ba amul résultat damay jàpp ni am na leen lu ma war a analyser mooy maa démarche man sama bopp nu ma doon defee politique ni ma yaakaar ne noonu moo gën a baax euh, joxe na résultat ba fii waaye war naa am lu ma ci soppi déglu askan wi mais aussi ñi nga xam ne ñu ngi may wër bu ma nekkul foofu ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo war a nekk de de bons relais loolu itam ku ci nekk ci ñoom dana jàngat li nga xam ne moom war a def rectifier parce que la politique c'est une remise